amin alors euh, ball mmh, Balla Gaye 2 bi Lac génnee dafa remercier mbër yëpp mais tuddul Balla Gaye 2 remercier wul Balla Gaye euh, nit ñi nag ku ne xamoon na diggante Balla Gaye 2 ak Lac de yow xaritu buri bàccili sa doomu ndey euh, tey lan moo war a mën a dox seen diggante ba wax dëgg yàlla Lac de Guiers lu ñu xam Balla seetiwu ko demul jàppalewu ko ba Lac de ñu ne fi mu nekk nii su gisee avance su Balla sax day bëreeg Balla te bu njëkk def ne woon moom Balla duñu bëree parce que ay mbokk lañ euh, est-ce que Balla waroon na def loolu kam non Bamba Lac de Guiers am moom la si biir yoonu Balla Gaye nekku ci luñ ci wax Balla Gaye dañ koy tooñ yaa ngi dégg bien vrai nag xaritam la mais bi problème bi di am fekk fi Balla fekkoon na Balla dem. Hmm. bu France. diggante bi ñibbisiwul. diggante bi bi mu ñibbisee. Hmm. dafa ñëw ci euh, combat Sa Thiès bi. Hmm. ci laan euh, deux jours la fi def. demaat parce que contrat moo ko fi indi woon. contrat moo ko fi indi woon mu di mu mu mu jël avance am combat nekk ci pression boobu ah am ci lu mu jóge bëgg am ci lu mu dellu. rëbës soriwul de fii. même bu rëbës même bu rëbës soriwul mais fii dañoo toll foo xa dañoo toll ci jamono joo xamante ni ku nekk nag sa bopp nga tal. ah ba ci ñaari xarit yaasi. ah déglu ma. Balla Gaye Balla ni mu mel eh, de visa la yoonu Balla gay nekku ci. te seeti. waaw yoonu Balla ngay nekku ci Balla mënu ko woon seeti parce que Balla dafa am dafa dafa yor contrat jàmbur am ci lu mu nekk nag. contrat bu doo génn seeti ku nekk euh, kaso. mais est-ce que temps boobu est-ce que temps boobu am na ko est-ce que temps boobu. Hmm. est que am Balla am na temps boobu pour dem seeti ji Lac de Guiers. wax ñu dañoo am problème yaa ñu d'accord ak yow. non yëguma seen problème. waaw mais kon seeti yoon sotti yoon la woon. mais problème bi fekk fi Balla dégg naa ko mu remercier dafa laaj Balla avance na ñëw sëgg ba rek Balla amul benn problème waaye géejewaay gi yëpp nag ñu ngi derrière Balla Gaye 2. ci sa xalaat yow. ak xalaatu ñeneen man mi dëkk géejewaay géejewaay gi yëpp ñu ngi derrière. Euh, Balla Gaye 2 yow da nga solal robe avocat Balla Ngoné ma bàyyi la nga wax si. waaw loolu moom nu ma koy waxee. Mm. dafa nekk loo xam ne rafetul. parce gis naa. mu wax mbër yëpp ba tey revue de presse ñu ngi koy def. Mhm. naan peut-être Balla day naan kaso day toj gàllaaj moo tax seetiw ko. pour mhm. xaw ma nag mais bu ñu nee kaso day toj gàllaaj yaakaar naa nga tëdd ci biir cellule yi lañ wax. Mhm. mais visite yaakaar naa ne ñëppay dem visite. te kuy dem visite say gàllaaj say lépp yu ngay takk. xaw ma nag la moo nekk ci biir mais loolu rafetul en tant que Balla Gaye gis nañu lu ñu meloon. ak ki nga xam ne moom mooy moom mooy Lac. mu nekk xaritam doomu ndayam te nit ki nag yaakaar naa ne soo amee naqar muy mm. bànneex boo amee bànneex ni la say nit war a seetee soo amee naqar noonu lañ la war a seetee donte bu dee tëdd kaso la wala ñu jàpp ko problème de visa nu muy mënta doon Balla Gaye bu nekkee Sénégal war na ko mën a seeti comme donte bu dee Balla Gaye la nattu dal comme noonu la ko Lac de Guiers war a jógee dem seeti ju ko parce que dafa am leen loo xam ne rafetul ndax Balla nu mu mel ak moom bu situation yi amee ba ba ñoom ba ñoom euh, Bécaye Mbaye ñi nga xam ne ñooy promoteur yee ku nekk tey di ci wax di taxaw ko pour jàppale ko mu génn ci xat-xat yi mu nekk ba Modou mii nga xam ne ne sax jege ko wala gis nga ni ñu doon waxee naan comme moom xaritu bàlla la kon moom Modou Lo mooy loolu ba mooduloo Lo déplacé wu seetu ko keneen ak keneen déplacé wu seetu ko kon la moyenne des choses moom Balla waroon na mën a déplacé wu dem seetu ko xaw ma nag lan moo nekk seen biir parce que ay nit bu ñu dee ànd bu ñu amee naqar bu amee bànneex peut-être da koo mere ndax tey jii mbër bu toll ne Balla Gaye nga lekk ay millions ay mbër bu toll ne nu mu Lac de nga lekk ay millions yu bari xam lu ne doo xool xale yi nga xam ne dañuy dajale seen xaalis wut seen i dërëm ak seen di seen i déem nga dajale ku nekk seen i seen i 3 na ko dëndeex lekk peut-être da koo mare mais nit ki loo koy mënta mere wala lu ngeen di mën na jote bu nekkee ci ay situation yoo xam ne mooy loolu Balla la mooy des choses mën na déplacer dem wuy ji ko ndax kaso man daal. Hmm. képp ku ma fa dugal. banaa la wala képp ku ma fa nekk problème nga nekk sama nit te seeti woo ma ko man de bu dee man la dama lay multiplier par zéro. Ah, te ku ne xam ne zéro prise zéro égal zéro mais lu ñuy mënta am lu ñuy mënta am tamit visite bi dafa nekkoon yoon. parce que ñoom ñaar dañoo gisoon seen amitié bañ na ñoom du ñu bëree bañ na ñoom ñaar du ñu laalante kon la mooy des choses bu sa naw la nekkee si xat-xat baal la tey oto lu mu xat-xat-xat nuyul ma sama yaay xaj na ci tey jii euh, bis bi ngay jël. sa ticket dagg sa visite dem uti ji sa la xaw ma li koy waxee sa laissez-passer nuñ koy waxee dem seeti ji ki nga xam ne mooy sa xarit dem seeti yi nga xam ne mooy sa doomu ndey nga dem ba nga xam ne sëgg bëre boolew leen nga ne kii ne dootul làmb te boo dee làmb mu ñëw taxawu la yow tamit la même kon loolu de man de man de jaar rafetlu ma ko dafa waroon dem dem seeti ju ko muy dëgg. waaye kooku seeti ju ko nag bu génnee mën naa lim ñëpp remercier leen te du ko làmb Balla Gaye làmb Lac ku ci nekk gëj nañ cee gis moroomam. Hmm. xaw ma nag lu tax Ah ku ci nekk moom gën nañ cee gis moroomam bàlla buy bëre la dageer gisatuma ko la dageer buy bëree gisatuma dama lay wax Yacine même nit ki loolu mënta jotee imagine bu doon man la tey may sa xarit même xuloon nañu ba rayante boo déggee ne maa ngi ci xat-xat dañu ma arrêté loo mënta def danga ko war a déplacé dem seeti ko man de dama part waaw nangu naa loolu moom dëgg la nangu naa kon bu gisee ba ba Lac de nekk ci xat-xat hmm. li mu waroon def lépp lu mu waroon bàyyi même bu doon sax da koo reyal taawam wala ñu tojante ay bopp ak ñoom ñaar lu ñu mel na def laa moindre des choses dem uti ji permeem dem seeti ko bu dee une de temps sax. mu mais damaa jàpp ni Balla li mu tombé ak kombaawam nekk fi bi problème bi di am. man lu danga koy layal. non non layalu ma ko. layalu ko ak pression làmb ji ak pression làmb ji ak Balla làmb yi ko weesu mu jël làmbam ji focus ci hmm. yaa ngi dégg focus ci pour bëgg a am ndam dégg nga man lool laa jàpp ni moo tax amul temps Yaasin bëgg a am ndam sa xarit dégg naa depuis làmbu Balla Gaye ak yëkk ni hmm. ci lañ amoon problème parce que ci la Lac de Guiers yëkkati woon ay kàddu daan ne Balla mu ngi wax rek te ni ay wax daanu ko nga dem liggéeyi loolu moo metti woon Balla Gaye d'après ci lu ma dégg xaw ma nag ndax loolu la wala déet mais am nañu problème te ku ne xam ne ne ay doomu Casamance lañ dañoo bañoon ba ne duñ bëre. bu Balla bu Lac de taxawee di laaj avance fi nekk nii ne buñ ko joxee Balla sax mu bëre kon fi mu nekk nii. ça mais loolu du ay waxam Bamba Balla seetiwu ko yàlla dogal na mu génn. moom na focus nekk ci boppam. Ah, te bañ a génn kàddu yu ñaaw. boppam la nekk kuñ ko day liggéey rek non lool lool loolu kàddu yu ñaaw. <laughs> si si am na loo xamante ni man ngoone bu ma dara arrivé ma feebar wala ngoone seet si ma. du ma la wax dara parce que fii. kenn du ñaanal kenn nat kenn du ñaanal kenn feebar gis nga gis nga nag gis nga yaasin. wax dëgg nañu dëgg. <laughs> gis nga gis nga tey jii gis nga boo kee ba ngaa bëgg a solo Balla Gaye fu ñu ni nga solo ko bopp mbubu avocat su yàggee di nga cëppeelu yàgg sa mbubu génnal fii nga wax dëgg dégg nga du yoon ak lu ñuy mënta jote ku ne dañoo xam Balla Gaye ak diw moom bu ko waxee peut-être analyse am la wax mm. te li mu ko wax noonu ba ba euh, kii li mu wax dëgg la ne ay wax kase daanu ko Ah, ay wax kese daanu ko parce que en tant que conseil boo xam ne da koy jox doomu ndayam parce que dafa war a liggéey mhm. yow tam kuy gune sëpp te lam ko waxoon tey ba mu liggéeyee da koo daan yëgi ne ay wax kese daanu ko mhm. te tey lam ko wax tey mooy gisul ne conseil boobu mënul bàyyi ba wéetoog baala wala ñu dem déedéet da ngaa xam tey mhm. ay wax kese daanu ko loolu ñëpp wax nañ ko ko Balla Gaye képp koo xam ne kuy taxaw di ko conseiller da koo wax ay wax kese daanu ko loolu war ta mën a tere nga nekk gis sa xarit sa doomu day nekk ci xat est-ce que loolu kese la non non même ak lu si ah, mënta doon. yow kay xam nga lépp. déggoo li ma ah. wax Yacine. yow kay da nga <laughs> Yacine nañ waxante gis nga feebar ak dee ak prison kenn du ci toppanteeg nit. loolu moom dëgg la. nit ku feebar nga xam ni ki mu feebar ba nekk ci tolof tolof entre hôpital doo ko topp. gisoo nee nañ même yow mi nga xamante ne. prison hospitalisé ci hôpital ba sax war ngaa jàpp jour nga dem. seeti leen nga delloo sa xel sax. ci yàlla man nangu naa loolu nit génn àdduna waaw ko xool boo bëggee dégg dëgg Balla Gaye xaw ma luñ ciy mënta jotee mais dafa juum tey bu demee ba xelam dem ba xelam ñëwaat ba ñëwaat xam ne lu ñuy mënta doon rek dafa juum parce que nit ki moom boo nekkee moom mu nekk ci tolof tolof wax dëgg yàlla war nga ko mën a seet saafante koog moom bu amee naqar war nga fa mën a dem lépp loo jàppoon nga bàyyi ko mooy li may wax ci saa su nekk bu feebaree war nga fa mën a ko ndax ku nekk lak hmm. ñoom ñaar xam nañ seen diggante nu mu demee waaye bu demee ba lak dafa la laaj avance am xam ne ne kon xaritoo ko dagg na Bamba. Hmm. ak ñoom ñaar nu ñu mel woon doomu Casamance bu ñuy bëree ku nekk taxaw ci wetam. xam nga ne ah seen ànd la rafetoon na. géejawaay gi àndaloo nañ ko Modou Lo waaw seen ànd moom ak lu mënti